ji nañ leen yéen ñuy suivre ci 4appuis TV di leen jaajëfal bu baax ci bi nga ñu seetaan partout dans le monde France États-Unis Espagne euh, Maroc Gambie fépp rek fu Sénégal nekk di suivre 4appuis la bu baax di la ziar. tey nag ni ñu koy defee toujours ñu ngi waat fii Grand Yoff seet si fii Bour Gueweul sama xarit Bour Gueweul borom Dakaractu tey nag ñu ñëwoon seet si ko fas yéene waxtaan ak moom si combat yi ñu dëgmal nii mu war a am le 4 avril ci diggante Eumeu Sène ak Lac de Guiers waaye waxtaan ak moom aussi tamit ci bi nga xam ne moo dox ci Diène Kairé ak Modou Anta moo analysé ñaari combat yëpp. Ah, dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñu dugg si waxtaan buur ziar naa la. jërëjëf euh, Khadim kat appui maa ngi lay ziar euh, la ndokkeel di wax auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulil xalqi sayyidina Muhammad ibn Abdallah comme ni ma koy faral di tàmbalee rek ci sama ndorteeru kaddu di sant yàlla di julli ci alayhi salaatu di ñaanal sunu wayjur di ko ñaanal wayjur yëpp ñu yàgg wér waaye di ziar sama bunt ci cheikhul xadim di mawlaana cheikhina ibrahim ibnu sëriñ mbàkke madina radiallahu taala anhu di ko ñaanal sama borom sàmm ko defal ko riddan barakatan wa rahmatan fi barakat cheikhul xadim di ko ñaanal magam ju baax ji nga xam ne tey moo toog toogaay borom madina mhm. di sëriñ cheikh mbàkke mhm. yàlla sàmm ko yàlla dooleel ko yàlla al ko yàlla yéer ko ci yéen bu bi nga xam Eh, yenu na ko yenul ko bàyyam borom Madina waaye di ziar ak a ñaanal doomi Cheikh Mouhamadul Moustapha Cheikh Mouhamadul Mukhtar bu daarul Quddus sama borom bàyyi ko fi di ko ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa waaye di jaale waa daarul Muxti gépp eh, doomi doom Cheikh Awa Balla eh, Cheikh Mouhamadul Mukhtar génn àdduna bërki démb bu yàggul di ko ñaanal yàlla na ko bàyyam teeru yàlla na ko maam Cerno teeru waaye nag xaadim ñu jaale ndaanaan Thione Ballago Seck mi nga xam ni lu mu way ci sëriñam ba soppeem ba maîtram ba yaram ba Abdoulaye Mbuub la ko daan tiire di ko way dama wax démb ay doomam muumi ne ko seen baay da doon jihaat nu mu doon jihaatee mooy Thione est un vrai patriote lépp lu mu way soo ba ngoon doomu bi mën na ci jariñ way na jigéen bu ñuul way na apartheid way na doom way na oto way na yonent yàlla Muhammad way na lu ne ci àddina donc dañuy ñaanal fee mu tëdd ca yoof ginnaaw yàlla mi fa yaakaar yaakaar fa yërmandeem bu dee ramm am na te ñu gëm ni am na yàlla na ko yonent bi ramm yàlla na ko Cheikhul Khadim mi yaakaar ramm waa mi mu fi bàyyi nag ak i magam ak i rakkam te mu yor flambeau bi dañu koy ñaanal ni ma ko waxee démb rek yàlla teel ko ay tànkam ba mission bi bàyyam nekkoon tey mu yeggale ko xaar ñoo ngi lay nuyu di nuyu waa Kadapio bu kon il faut ñu taxaw ci loolu noonu yaa ko wax léegi Thione Seck est-ce que yéen ñaar seen amoo ngeen amoo relation bu particulier waaw euh, ku ma yebante woon la yàlla dafa def <laughs> man la ma bokkoon ci ci ñim mënul waan muñ euh, je me bi ñuy mujjee gisee Eh, no gisawaat nañ sax ñetti yoon benn bi Assane Ndiaye mu doon préparé grand théâtre am ñu àndoon këram Papi Signan suma frère woo ma ñu daje fa eh, keroog bi ñëwee di ko indil invitation wallahi lanzim ñu ngi ko fekk muy julli tàkkusaan no dañ ko fekk muy jàpp ñu ñëw mu ne may leen ma julli tàkkusaan ba pare ñu toog mu jàpp njàpp mu sell sabal borom julli ba noppi bi mu bi mu sell ma dee ba ñaan borom ci man la ne yow yow yow yow buur yow ruube rek ruube rek ma ne ko père yaa ngi may tooj mburu yu neex yi nga jox sa xarit de ko jox nit ñi ñu kafante foore semaine ba ci topp ñu dajewaat grand théâtre mu ñëw ñu taxaw ci bunt yu mag moom draay mu réeba son ba yu ndeysaan di ma ñaax ci lu bari euh, jàmbaar nga style bi nga garde ko bu ko yàq ci logique bi nga nekk noonu la xam naa sa personnalité lu ne ndeysaan mu wax ma ko ñu gisewaat beneen julli aljuma fii ci Cité Xandaar jumaa Adama Faye gi ma ñëw julli aji ma julli ba pare ndeysaan taxaw fa presque benn dix minutes jàmm sante fo ore mais lu jotaay bi gàtt gàtt gàtt jéem la wax lu lay dolli yàlla dimbali ma ñu tasewaat ñu bàyyi la ko benn xale fii grand princesse Gamel mu ñëw fa doon ko ñaan si keroog ñëw julli ne tàkkusaan génn ànd waxtaan euh, ma interroger ko xaarim nangul ataaya ji Euh, ma ma interroger ko ci yu ci yu bare bare bare bare bare ndeysaan mu wax ma ci xalaatam en toute francheté euh, di koo xam ni yàgg na subir ay injustice xam dama wax ni euh, nañu bëri baalu ak coon il a subi d'injustice dans pays là waaw dund lu tar dund lu métti ba lenn ci mujjeelu dundam maître Ousmane Seye wax na ko ne tey coon bu tëddee ci biir bàmmeel dina tàlli ndax tey il a blanche totalement par la Cour suprême loolu bi may mujjee dafa mu émission ba di ko tooñ ne ko diw dey nee na yor na ay secret ci dossier bi da di ma ay waay na ma ko wax setal ma bilaay bu ma ko defalee dinaa dinaa dinaa dóor pooj maanaam il tenait tellement à rétablir la vérité ci li ñu koy waxal ak di ko def xam nga ngay artiste bu def presque quarante ans de mu musoom benn problème guléet coon du tox cigarette du naan sàngara ak ci milieu musique ni mu jafee depuis jamonoy LT boitu njëkk ya nga jaar Star Band jóge fa jaar Baobab en 87 nga créé sa groupe Ramadan ba en 2015 ci ngay soog am problème donc fa mu tëdd yàlla na ko sama proviram waaye Sénégal yi nañu ko baalu ak nañu ko lenn ci Sénégal yi parce que ay mbiram am na ñu ci waxoon ñu ci waxoon xam nañ seen bopp yàlla xam na la ñu ko waxaloon yàlla xam na yonent bi xam na la ñu ko waxaloon ci ay rumeur yàlla xam na yonent bi xam na su leen wóoree ni defuñu ko defu ko woon nañu tawasul tuub seen diggante ak seen borom te tuubal ko loolu daal euh, euh, saama sama sama sama tenue au cœur lu nekkoon ci sama xol la Wally aussi a subi la même chose des injustices ay mbir yu metti ci carrière mais il a su à relever les défis donc euh, yàlla na ko yàlla xalaat yàlla na ko amiin mais man su may faral di déglu ay waxam ci ay émissions yu muy def toujours da ngay sentir na kii nit bu piyee la quoi. parce que chaque hmm. fois yàlla day ñëw ñëw. waaw da koo jiital souvent ndeysaan waaw. waa xam nga ku ñu ne Baye Cheikh Seck mooy sa baay aja na koy ngom mooy sa yaay nga bokk ci famille fare bi ci Marène di doomi géwél pire nga xam ni seeni maam démb ak barki démb ca ëttu buur lañ daan bokkuñ ci géwél yooyu de déedéet. seeni maam ci ëttu buur laa nekk daan tëgg ak a way way yi mu way daf ko donn ni mu ko mënee daf ko donn parce que loolu la donn démb ak tey coon waxuma la waxtaanam mais déglul ay wayam déglul bi mu naan jigéen ju am doom jur sànni ci mbalit mu yendoo xiif yendoo marché yaram dawul ji doom ëllëg bu dee bu dee kii bul euh, bu dee kii na maanaam bul ni woy sama ndey xoolal bi muy woy apartheid xoolal bi muy woy Mandela ak tant d'autres tant d'autres xoolal bi muy woy nen eh, sax yi sax yi jullu ci biir suuf tey dundee néew ci suuf xanaa ñoom xanaa ñoom duñu woor donc bés bi tey sóoroon na ko ndax anticiper woon na ko ci ay woyam waaye boole woon na ko aussi ci ay jëfam. Mhm. on n'hésitez pas. Mhm. wax doomam dëgg sax ay doom yi mu jur ay ñoom Seydina Aliou ay ñoom Waly mhm. day jaar ci digg bi mhm. li ñu di làq-làqal di ko wutal ay buntu dafay jaar ci digg bi mhm. te loolu mooy comportement jullit parce que nga xarit yàlla ñaari dafa rëy ci moom mooy benn bi mooy bokkaale shirk ñaari bi mooy alkasa bu fen fen rek la ñuy wax ne que dafa yëngal dafa yëngal arsh njaaloo woog mooy yooyu yëpp sax mën ko tuub sama borom jëg mais fen day yëngal àddina mm-hmm. te moom bokkul woon mm-hmm. ci façon yooyu li muy gëm daf koy wax même bu fekkee mm-hmm. arange wala yow mel déglu mais daf la koy wax en tout cas nit ku baax dem na euh, l'une des piliers de la musique sénégalaise Euh, un baobab de la musique sénégalaise. bu marqué ay jamonoom star band ba baobab ba Ramadaan. donc euh, Wally tey moo fi nekk njabootam comme kuy way. moo opté pour def musique. Euh, nañu ko ñaanal sama borom dimbali ko jàppale ko. ñi daan ànd ak baayam tey dar ko tey mosuñu ko bàyyi. ci mel ni ñoom Sami Thioune ci mel ni ñoom Bourguel ci mel ñoom ñoom Ousmane. ci mel ni ñoom Ndiol Sikkim nañu ko gën a jàppale wër ko dimbali ko. te xam ne Wally c'est une fierté. am na solo di ko ñaan la bu baax tamit yàlla yërëm ko xaaree ko aljanna vraiment njaboot gi ñu fi bàyyi aussi tamit yàlla teg leen loxo bu baax a baax a baax buur macha allah am na solo.